wata borom mi ne laa taxlu fi diinikum gayra alxaq wala tattabicu ahwaa qawmin qad dallu min qablu wa adallu kathiran wa dallu an sawa sabil bu leen teengal ci seen diine di yëkkati ay nit parce que ñoom dañuy jàpp ne ab yonent wala kuy wax ci diine daal waratu la nekk nitu ordinaire gis nga ñu ne yonente yi in antum illa basarun misluna ñi doon sabote yonente yi ne leen yéen nit doom ngeen comme noonu yonente yi ne leen in nahnu illa basarun mislukum gis nga liñ leen wax lañ leen tontu nit dong ngeen ñu ne ko nit dong lañ gis nga nit dong lañ te moo tax fi mu ne ñuy wax ne ay sëriñ si ak ay ay ay ay nit lañu rek ay rek ñu ne loolu kon loolu aw xas la te yonent yi biñ ne leen nit dong ngeen dañ ne nit dong lañ in antum illa basarun misluna ñu ne in nahnu illa basarun mislukum soo demee suurat Ibrahima da nga ko fekk nun nit doomu lañ waaye nag walakin allaha nag yamunnu ala man yashaau min ibadi nit lañ comme yéen nag waaye nag yàlla mooy baax ku ko soob moo nu baaxee jaarale ci noonu yonent gi waaye nag wa maa kaana lana an natiyakum bi sultaanin illa bi isnillah sañu ñu leen a wax lenn nag lu dul ci ndigalu yàlla dañ koy teg duñ ne yonent lañ rek jëfandikoo suñuy pouvoir bëgg leen a def loolu loo xam ne suñu bànneex lañ leen ko def déedéet sañu ñu lenn lu dul luñ leen di wax ci ndigalul yàlla lañ koy teg waa wa ala llahi falyatawakkalil mu'minun kon ëppal ci ay nit ba weesale leen waaye loola itam nag ñañ cee ëppal ci ñoom ñoo ko mën a corriger boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wasallam xul koy wax neel nangam loolu kilifa diine gu ne ci lislaam waroon ngaa jàkkaarloog sa mbooloo wax leen xul yooyu xul yooyu yonente bi wax nga wax ko daal sa mbooloo ne gis ngeen laa amliku li nafsi naf'an wala darra mënumaa jëriñ sama bopp mënuma koo lor wax ko say taalibe waaw ولا اعلم الخيبة خوما لوي خيو سوبا فك ين نيك خوما لو خيو خوما لو خيو دي واو سوما كو خامون تاي دوما لين سوخلال دارا كون داغي نييو مان ما يور ماغا سي يو فيس دي لين جوخ كون لاستكثرت من الخير قل لا اقول لكم عندي قصائر لا ني لين يوروما دنت يالا يي يالا دنتام بي خوما سافوم نين ولا اعلم الخيب خوما لوي خيو انك دوما ملاكا داماي ليك دي نان دي فيبر لو ديك دي دال ليرال قل يوي مو وخ يونت بي كو جيتا مbolo بو باغي ني تيك لا boo gisee yonente bi balee gis nga nit rek lañ ko jàpp waaw jaanib insaani bi côté nite gi nit la daf ko daan leeral amul dara lu muy nëbb amul côté nite gi amul dara bés ba ñul ñu fekk ko muy lekk même dem ca wana wa sax day ànd ak nit léeg-léeg mu ngàbbal ko sax la mu dem ci wana wi di kat nëbb ko am na ñoo xam ne kenn bëggul ñu teg sa bët ci ne sax boo doon dafa dem ci wana wi kenn ñemewu ko sëñ baa ngi ci duus bi <laughs> boo ko kooku ñu dugg ci duus <laughs> loolu la loolu mais yooyu da koy wane da koy wane wetu nite gi dangay ngay wane wetu nit gi mooy tax du ñu ëppal ci yow mais sooy côté mystique bi rek nga leen di wan côté baatin gi rek mais mel na doo nit côté nit bi da koy dëbb bëggoo ko la gis ngay lekk bëggoo ko la gis ngay nelaw bëggoo ko la gis ngay dugg ci wanag sa soxna sa kenn ñemewul ne jabar yi sëñ bi wala yooyu loo ca wax ñu ne mel na sëñ bi sax amul jabar bopp ah lépp rek bëgg a doon baat loolu mooy tax nag ña gàtt xel nag ci la weesale ak nit waaye yonent bi bu ko bëggaan puus ci loolu moo koy delloo si mooy delloo si boppam qul innama ana basarun mislukum يوحى إليه وي أنما إلهكم إله واحد من نت لا كوم يين دنج ماي واخ يو نك واي تاخول ما لال سي نغور دي دارا بور بي موم بن لا فاستقيموا إليه جيم لين سي موم فاستقيموا إليه واستغفروا لولو كون موي تاخ دوم ادم مانا موتي سي باس باسو بوكالي